ankay fa ay dara lu roowuñu déedéet ah Wally Seck ak Pape Diouf déedéet xeelu ma bokk ak Sénégal oh, ay waay ay waay ay waay ay waay hmm, chéri naka mun nag mais di nga ma rey ci koor gi rek <laughs> non dama ndogo ndogo ndogo chaque jour nga génn fu bees chaque jour nga génn fu bees ba suur tu es ah, le premier président au Sénégal boo xam ne ni nga mel yow rek yaa ko. non dëgg loolu hmm? kay loolu moo tax. je suis fière de toi ma ci bu saw bi. mosal ma ci bu ma ñëw xaaral. foo la la moo tax booy moo tax gis dégg naa waa ji naan lambar lambari. lambar la commencé. lambar lambari. lambar lambari doo feru góor sax ñuy wax naan ay lambar lambar lambar na bàyyi lambar li kii ma a lambar lambari. waaw comprendre ñu. Hmm. Cheikh nag des fois dañuy am war a am temps toog. maa ngi yow non macha allah non chérie. je veux pas te salir les habits. tu vois hmm? chérie chérie. Hmm? pale nag neex ah. hmm. booy booy boobu di jéem a xaas. xala yi donc tax na mu bëgg a ñëw pale. bañ rek jar na xeex beeg riposte leen nag yëpp xel maa ngi ci bañ c'est bon ah. xam nga fóoru pale bi xam naa dañ ah. mooy keroog bu mu fi jaaree affaire Covid bi. nga ñamal ko bañ bi. boobu ba léegi dafa tàggale ko sagom ay booy repoussé leen ak maa koy defar la <laughs> macha allah neex na ah je t'aime trop attends hmm. attends chérie tu vas te salir attends doon wax naan xaalis neex na waaye man dama naan pale neex na maa ci xam dara allah ko ci amul toog <laughs> toolu tooli pale bu neex bu rek ñooy tax ñu fërëfëri macha allah mais yàlla koy joxe <laughs> c'est délicieux. macha allah non maram. Hmm? donc ba ci seen jabar yi sax dañ lay soxre man xam naa loolu. te eh, xam naa loolu. même seen jabar yi buñ la seetaanee sax tam ñu zappe la. Mm-hmm. mais boo génnee maram nag boo génnee nag xam naa di jagar jagar ñu naan jabaru président nga ne jabaru président jëmbër ba ma lay gis léeg-léeg ngay jéem a naturel yow simple dara boo génnee da ngay na naturel lu mareb ni ma jaaxalee comédien dëgg nga damay gis ngay dugg ci biir marché yi di dugg ci kii te kër gi ba ma la xollil pataas sax ngeen ma baal ma ci kanam yow da garaaw quoi dama social nag bul noonu sa social ci man oh merci beaucoup je t'aime je t'aime très fort je kër gi moom ni ñoom Amadou ak ñëpp demee nii vacances yu koor gi dafa nekk. et tu es ce que ce que de plus cher au monde. oh merci beaucoup ana xam li nga am kenn da ko am. am na ñoo xam ne fi ne nii président woo leen téléphone. Mhm. fi ne boo jëloon benn bopp woo ko téléphone mu ne allo bopp mhm. wolof allo man la Macky day xëm. Mhm. ay macaroni euh, du la leen oui. entrez. <coughs> ndànk ndànk. chérie c'est pas fermé duggal. waaw kan mooy heure bu di ñu déranger. heure lekk rek la euh, moom nag lambar lambar ji ñuy wax moo ko moom. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def. <laughs> ñoo ngi euh, naa de. ça va ça va très bien. Sall Ngari. Sall na ngi fi maa ngi sant. non ñu ngi di station dañ ko. ah, ah waaw waaw naka mu sawa sunu maram. waaw sant ngeen def quoi ñu ngi fi. xëy na ci jàmm sawa sawa waay wi rafet. ñëpp kontaan nañ. dëgg la dëgg la xëy na yéen. dëgg la na nga def de croix. Ah, maa ngi sant. nomm naa la loolu. ça va très bien. maa ngi sant. ah da nga génn teg seen i racheng daal. Hmm. ah racheng moo bëgg a. xanaa jógewoo sa kër. ah fa laa jógee jaaxle mu indi rek. ah kon da ngaa da ngaa doog a jéem. macha allah ana Amadou mi ngi fi. waaw mi ngi si jàmm. maa ngi leen di siyaare bu baax waaw ñu ngi sant yàlla bu baax baal nañu la yàlla boole baal amiin bu fekk ay diw yu bëri moom lu baax la mhm. ndax yàlla subhanahu wa taala ko santaane mhm. ay la yooyu nu war cee topp la am solo dëgg la ah, dafa am solo ah. mais maa ngi tuub non garaawul ah maa ngi jégglu ci débat la yu mu doon wër mhm. ah, dina ci wax ŋàññ daal eh, non garaaw eh, politique mel noonu dina ci eh, maa ngi koy tuub bu baax maa ngi koy tuub ay la yéwén da nga koy ah, moo laaj loolu de sel ah, du melu ma noonu c'est pas comme ça mhm. eh, melu ma noonu waaye dem des fois di laaj mhm. loolu mhm. Eh, mais nag dama laa soxla woon tey waaw ayca bismillah yow rek la ñuy déglu vraiment ndogu gi riis na waxtaan na lépp macha allah eh, xam nga maa ngi jëm mag dëgg la ma xoolee xam ni mënatuma nekk président république Sénégal dëgg la yàlla yow la ko tànn def la ko ma xam sa xool dara new ci. doo jàpp doo jàpp daal. dëgg la eh, mu bëggoon daal koor gi ci lañ ne te dafa métti. dëgg la mu bëggoon am loo ma fal. Hmm? ndax kër gi dara new foo ma ne naa doxantu rek. ah yow daal mais dégg croix yow keroog gis naa la ci conférence de presse bi nga dend ak booy boobu wala du yow. si si am na ku ma xawoon rôle nag ci opposition. <laughs> ah nekkul yow xam naa non ñi ma ci ndural daa bari. Decroix ki ma seetaan keroog maa ngi naan madame ki Decroix la mu ne ma woo. kenn du la jaamu depuis corona. Hmm? depuis corona laa léegi Decroix man c'est que sama problème mooy bëgg naa la fal dara. mais da nga toogul daal da nga bëri jaabante da ngay lambar lambar rek. léeg-léeg nga foofu boo gisee lambar lambar gi ñàkk ko waral ñàkk. non mais ah, da nga fixe fenn mais am nga parti. Aji PADS amoon naa parti. kan hmm? amoon naa parti. ban parti. Aji. ah Aji ah, PADS. mu ne sama kër. tëgg mu naan siège bi ngi sa kër. doon ko yëngal eh, malheureusement léegi daa suppali ko daal. je crois yow xam na ne doo neexal la jënti quoi léegi. mën nañu def xam nga man tam bu may fal damay xool nu muy mais jékki-jékki comme gi foog ma vérifié waat parce que teew li ngay jàppante dafa bëri bu nekkee ñëw gouvernemental. loolu dëgg la waaye liggéey yi ma liggéey loolu loolu loolu à Sénégal yëpp gis nañ ko. macha allah bu Sénégal bëggee damay jug. dëgg la moom ko en mm-hmm. mm-hmm. ah, mariam. macha allah maa ngi sonn pour Sénégal di sonn pour jeunes yi. dëgg aussi pour yow. Mm-hmm. Euh, donte nag maa ngi doon dina opposé wu. maa ngi fàttaliku meeting bi kii ba amoon fële ci wetu RTS. may dugg RTS noonu xale yi ma wax Euh, waaw d'accord léegi dinaa ci baaxal dégg nga. ah waaw naa ci baaxal beneen yoon incha allah dañ xool nañ ko dégg nga merci waay. dégguma. ma ne merci beneen yoon dañ ci baax. Euh, le gardien le gardien de la question. ma ne ma saxal ma tudd. lii de mooy respecté woo leen. tu vas salir tes habits fale dafa neex tu vas salir tes habits chérie fais ma jurgoon ma. de croix. mais xam nañu def. da ngay góorgóorlu booy ba am na am na avenir de booy bi nga toppoon noonu.